daleen ak jàmm ginnaaw fausse information yi doon dugal ci réseaux sociaux yi doon wax ni coronavirus amul Tuuba wut askan wa fa yeewoo di commencé di gëm benn par benn ni jàngoro ji am na ca boobele dëkk waaye am na tamit fii ci réewum Sénégal Mamour Diallo di sous-préfet bu Ndam mu ngay xamle ni askanu Tuuba xam nañ bu baax ni lii di coronavirus moo nga ca dëkk boobe waaye sax yemuñu ci dem nañ sax bay boole moodu moodu yi nga xamante ni jóge jóge Italie wala France ñëw ca dëkk boobee di Tuuba di jaar ci yoonu suuf yi ndax kat moodu moodu yooyee bu ñu egsee ca dëkk booba di Tuuba du ñu dem kër docteur xool seen wér-gi-yaram dañuy ñëw làqatu ci seen biir famille yi ñu maase déglu Mamour Diallo moom mooy sous-préfet bu Ndam. signalé nañu ay ay ñu jóge Italie di dugg si Sénégal te du ñu jaar si yoon bi parce que te nañu frontière bi mais ñu ngi dugg si voie terrestre bi. du rocceeku mm. nank di dugg si kër yi. ñun ñu ngi ñuy jox ay turam képp ku fi dugg gars parce que euh, loolu la Sénégal manqué woon maanaam di dénoncé parce que ñun suñu culture dañu waxoon dañu ngi suturaal dëkkaale jàmm si gën sa dëkkaale da nga koy suturaal rek waaye lii dafa dem ba nga xam ne bi bul suturaal lu mel noonu parce que jàngoro dañ koy weer moo tax képp ki nga xam ne bi ñëw na balaa ñu lay ñu lay dénoncé yow mii ñëw nga demal ndànk si docteur nga ñëw nga leen man day dama demoon Italie dellu si naa dama bëggoon ñu xool ma ñu xool nan laay soree sama njaboot diir ngeen consulter ma ba nga xamante ni bi ba ngeen jox ma ndigal ni ma man dara jotuma pour ma mën a dugganteeg sama njaboot c'est-à-dire yow yaa war a am boobu xalaat pour aar sa bopp mais aar sa njaboot waaye boo ñëwee làqatu say waa kër say soxna yi daal di la nëpp nga duggal la feneen ne la bu ko kenn yëg parce que dañuy képp ku jóge Italie léegi gars yi ñu ngi lay joxoñ mais loolu mooy problème bi nag te loolu il faut que ñu communiquer si yéen ngi suy communiquer ak kilifa yi pour que ku jóge Italie même boo jaaree voie terrestre nga ñëw tamit mais ñëwal si gaañ yi bu laqatu laqatu bi moo ñuy andil lii nga xam ne bi maa di taali parce que boo laqatoo ba nga wàlle sa njaboot day mujj a feeñ boobooy gën a bon non seulement da ngay feeñ waaye tamit askan bi dëkk bi yëpp daa ñu yëg ni yow danga nga nëbbatu ba wàll sa njaboot. nag mu mel ni mbir moomee yamul Touba rek ndax ñu bëri ci askanu Sénégal ñu ngi commencé di boole moodu-moodu yi jógee foofee ca biti réew di dugg si Sénégal te du ñu dem kër docteur. waaw léeg-léeg ñun ñoo ci war a xeexal suñu bopp amul am doon loi amul amul docteur amul dara ñun ñii ñu nekk dëkk bi nii doon ay doomu aadama sëñ bi ku ci xam am móoru móoru bu ñëw barki dem wala démb nga dem wooti police ne nuyu jóbbu ko ñu xoole boo bu nuyoo nga kala nga fasal ko kanam wan ko caractère gu ma sëkk xamal ko ne ko dama laa en waaye bu leen mayee kanam gu leer ñu si yéem a saafoon teg yow wala naan la ay démb laa ñëw barki démb di wokk bopp taxaw di songali ci am ñoo xam ne soof cam móoru móoru yéey murmur yi daal dama yaakaar ne am na ci loo xam ne soxor la doo ñaam picc mu lakk taat day bëgg morom mooy dëgg kër njugu mu lakk lakk lakkaale kër pitax mooy waxe lan toog leen ci àll bi ci àll bi ngeen nekk ba mbir am ngeen bëgg di fonto ñi di daw di songu ci kaw nit ñi murmur yi war nañoo wax ak ñoom fii ne tax na suñu dëkk bi fii ne kenn waxoot fi waxe la ay ay kii foo wax ne da am koor naa da ngay dén di wax ni sax maa la foo dëkk Touba nga wax maa la ay cheikh nangam nangam eh ngëj nañ toog waaye nag mu mel ni moodu moodu yooyee kenn du leen jam naa ni ndax am na ñenn ci ñoom ñoo xamante ni ñoo ngay commencé di yëkkati ay audio di ci tontu ñu bëri ci askanu Sénégal ñoom sax dem nañ bay xamle ni mbir mi dafa mujje nuru ab stigmatisation. nga yow mii di wax ci moodu moodu yow waroon na maa xam sa tur yow ku katt sa ndey nga ku téegal sa ndey nga yow mii yow doomu xaraam nga yow amu mbokk mu doon moodu moodu moo tax ngay wax li ngay wax doomu xaj da ngaa gën a doon moodu moodu yi sénégalais wala lan Euh, dënk euh, li ngay def ci Sénégal est-ce que est-ce que Modou Modou li fi Modou Modou yi def est-ce que def nga ko doomu xaram yow yaa bon waaye te bañ euh, te bari wax yow boo xamul loo wax mënoo noppi doomu xaj li fi tuur jàngoro ji ñuy wax Modou Modou benn Modou Modou tuur ko fi tubaab yooyu ñu bàyyi ñu dugg ci réew mi ñoo ko fi tuur ngay ñaf sa ndey boo ko ñemewut wax nga kat sa ndey téye sa làmmiñ loo yekk Modou Modou yi doomu xaram ah yow moodu Modou bii ñëw ci réew boobu da ngaa judd sa sarum ndey waa yow doomu xaj. wokkaal bi waroon na maa xam ku ko jëkk dugal ma wax ko ko mu boole ko yépp dugalaale la ko sa cott ndey naan móodu móodu yi doomu xaram li ñu waxatee ngi nii rek naan picc mboolu lakk day bëgg woon doomu xaj yow li móodu móodu yi am Sénégal da ko fa am ko fa am nun ñoo ngi fi ci réew suñu njaboot ñi ngi foofu suñu njaboot ñi ngi foofu suñuy doom a ngi fi ak suñuy soxna suñuy waajur doomu xaram kenn dana yenu jàngoro di kondi ci réew mi doomu xaram xanaa kon tubaab yooyu nga nga war a wax wala da ngaa ñemewut a wax boo waxee gouvernement bi wala def la ci kuula waa fan kuula tuuti journée kon ci wel yo ma lu ma la bëgg a wax sax xeeb ko rek lu ma la bëgg a wax rek xeeb ko yow ku ñàpp sa ndey nga laa la wax doomu xaram seen xol yu boni doo nga tax balaa bi di wàcc Sénégal doomi xaj yéen da ngeen a baax nit ñu ñàpp seen ndey ngeen laa la wax doomu xaram ngaan moodu moodu yi seen cotti ndey laa la wax doomi xaj mën leen a ngaan ñu ñu wadd moodu moodu yi da nga leen a defalub añ wala da nga leen defalub reer a booy naan moodu moodu yi doomu xaram ñun ba ñuy ñëw ci réew booba da ngaa judd sa cott ndey bu ma la xamoon ba gis la damay toj ci lëfal ndey laa la wax doomu xaram